sëy ku ne xam nga gis Sénégal ku mës a jóg pour représenter ci Sénégal am na ku lay jox drapeau la sëy xanaa xamoon ne ku dem te yóbbu woon drapeau déedéet ku ñeme ku nena da laa dee les communicateurs ñi nga xam ne suñu yaay xaar nday ma jaaga ndeysaan ak suñu papa Alaaji Mansour Mbaye ndeysaan ñoom daaro mbay jóg ndeysaan sëñ ñoom Soda Mama Fall. ndeysaan oh. sunu yaay ja yaa nga woon ca ba. déggoo li wala ba nu waxee ba daaneel. lëfu tuuru ci rangoon ban ko fobeeree ba teg mat na ñeenti paan ak genn wàll ci émotion. takk nañ ka galaas nag ndox yooyu noonu. Ah. ku xam rek. ñu xamal léeg. nga xam traditionnel bi. ndeysaan. Papa Diouf. ndeysaan ndaanaan yi nga xam ni danoo way ba way fu dara newul. ñoo nangul ni la. Papa Diouf yónni nañ la. yónni nañ la jox la drapeau Sénégal. kon Papa Diouf faxasal waru la Papa Diouf xoolal eh xoolal. defal lu la neex yow. eh Papa Diouf fil filaale def la la saf. xoolal Papa Diouf xooteekul. daa ilaha illa Papa Diouf. woyal ba fu way newul. eh waa Ziguinchor lu mu def. waa Ziguinchor lem dafa ñàkk temps yi si réew kay ñuy jël ay lem ay vitamine C. solution ay kii nu mu tudd jinjeer. ay tiir ay tiir. waaw ah, dajale ni Pape Diouf am sunu wàll ci Bercy bi ñun waa Ziguinchor sa préparation repas. te am na grand footballeur yoo xam ne ñoom Cristiano Ronaldinho. kan yow. waaye Cristiano Ronaldinho. waaye ñi ngay gi ba. waaye ñooñu dañuy ñëw seen. xanaa ay joueurs PlayStation nga may wax Cristiano mooy kan. Cristiano dina ñëw. am na beneen joueur boo xawoon fange nii. kan la ancien joueur la. te nekkoon ñëw Ronaldinho di ñëw. Ronaldinho lan wax. waaw Ronaldinho dina ñëw. wa am na keneen koo xam ni. Mhm. mës na ñëw Sénégal. waaw football Messi Messi la. Messi moom. moom mhm. nee na moom li koy jaaxal. Mhm. mooy euh, jabaram bi day gis muy esthétique euh, Pape Diouf mais comme xamu ko. nee na mu ni ko mais mais kii mooy kan. waaw xam nga Pape Diouf melu dem dafa suave. dafa dafa dafa suave. sincèrement nag xam nga Pape Diouf am na sax benn tubaab benn professeur bu nekk euh, Marseille. waaw. ñoom ci wàllu conservatoire musique ñuy liggéey mais mais nee na saa bu ko solo dafa am dafa am cancer na waaye saa bu dégloo Pape Diouf day soulagé wu day soulagé wu te Balla Gaye oh ay Modou Lo Balla Gaye ay à face ba loolu loolu loolu dara fayu ko sëy hmm. man damay taxaw ci ginnaaw Balla Gaye waaw man ma taxaw ca gannaaw Modou ñu def face fois ma bu ma ball. ni ko wax fois ma bu ma mënuloo ni ko joxoon ko lee. Hmm. say. du yomb face à face boobu. waaye kenn doo ma seen roi des arènes. lii. nee na kundum rum doon te Eumeu Sène nee na moom nee na xaalis bu mu yore moom. ndeysaan bu bari bi mu yóbbu na fa dégg boo boo ma déglu dégg ma wax. nee na ñaari tapis turki. de douze mètres la Eumeu Sène recommandé. pour ñu yóbbul ko ca Bercy ba loolu. turki waa turki yónnee nañ ko Bercy ba fi mu ne lal nañ koo pare. comme nag Eumeu Sène nee na Balla Gaye da ngay jaay ni yow yaay roi da ngay tàllal sa moni Eumeu Sène nee na moom. ay euro lay génne yow CFA nga génne. waaw waaw baal ah, a ma seen a wax de. ma seen a wax. ma seen audio baa ngi fii. ah ñoom man yow tamit audio baa ngi fii. te loolu yëpp ca Bercy ba la. waaw du yomb de. te loolu yëpp ca Bercy ba la. spectacle boo xamante ni spectacle bu kii maa léegi nag ginnaaw bu ñu defee face à ndaw soosu. index yawo. E waaw index yawo. E dafa am lu mu wax moom it. moom it dafa war a tax ci diggante Eumeu Sène. ndax xam nga ne index yawo e mbër fii ndi nee na du génn Sénégal te marié wuñ ko. waaw kon dama xamul baax te jour boobu lay célébrer li nga xamante ni mooy fiançaayam ca biir. Bercy waaye ka nekk ca Mali muy Jabasora moom it nee na dana célébrer fiançaayam ca biir Bercy ak benn sénégalais ndax ñoom neenu sénégalais yee leen saf. leen saf waaw. Pape Diouf nag. Diouf a ñoxor bàyyi. mi ngi waajal lu rëy ca Bercy. ñuy woon ak Jamila. dëgg la. Jamila nga xam ni dafa bëgg Pape Diouf di jàppale Pape Diouf nekk cee liggéey ba dëgg la ngir birsi bi ndeysaan léegi nag africain boobu sauvé woon xale ba waaw Mamadou moom la ñu jël comme sapeur ca birsi ba la Pape Diouf jël dëgg la dëgg fi muy toog kuy waaj a xam moom dana tëb tëbaat ci biir nit ñi. ndeysaan seppi la ci biir nit ñi. ndeysaan teg la ca kër ga. sans problème. mama doo nga fa kon xale jigéen ñi dalal leen seen xel ci tàncante bi. waa ak xamante bi. kuy bëgg a sonn rek. nel Mamadou. mais xam nga lu garaaw. Touré Touré. nan ka waxta dee. spectacle bi Pape Diouf di pare. ak Pape Diouf répétition yi métti yi muy répété ci taatu géeju ngor gii. non mais loolu man man mais Pape Diouf mais li muy entraîné na arrêté bala muy dog balay bis ba. bëggee dégg non Pape Diouf nee na kenn du gis pay di wax waxi dee. alhamdulilah yéen nag Sénégal du ñu affaire nee na loolu la fas yéene éliminer ok. ay dee yooyu noonu affaire dee yi nee na waxatuñu yooyu. kon yëf yi daal toll na ci eh, dafa fas yéene balanko balanko bara baraaye baraaye baraaye nee na am na ñoo xam ne ay médiocre na. nga ni waaw xam nga école dafa am. da ngay jàng classe nga def leçon ñu ni. suivi. waaw wala ñu ni. Hmm. bien sûr. yàlla baax na suivi. macha allah di nuyu l'international. Vito Meng ah macha allah. di ko bëggee ak jawandu doomi Thiès boobu. dëgg la Vito doomi ñoom ñu ay footballeur ñu mag la ñu. ay ñoom Papi Diène Ablaye Diène waaye Vito Meng brésilien bi ma dégg ñu ni moom la tudd ba tibiyaam bi teggeeku dëgg la. loolu yóbbu ma ko. man mii di wax ak yow dama. ko dégg rek ay biir yu du kenn du. ko dégg rek kon nag nuyu ñoom Papi Diène Ablaye Diène Sidi Diouf. di bëgge gaa yëpp di ñaan yàlla jàmm ci réew mi amiin yaa rabbi yal na yàlla dafa jàmm dafa nu sutura te day liggéey rek nag képp seul la travail paye merci beaucoup jërëjëf kon nag dig daje ci kër Kara Mbodj ku ñuy wër foofu la ñuy dal ñun télé Sénégal ñun foofu la ñuy dal lay dal Kara Mbodj nee na équipe bu télé Sénégal bi na nanu dal ci kër feneen fu nu dal dañ ñu mer te sama xarit la xaritu Moustapha Touré la loolu dafa leer koor gi teraanga ju équipe nationale Karambooj barke Seydina Mouhamed ay waay Karambooj mi yàlla ka yàlla fay. jërëjëf Touré ñu tëj waaw su dee su ñu ngi naan dana dem ak du dem mais Pape Cheikh jàlloo dégg naa moom c'est sûr que dana dem. ah waaw dana dem. mu ne ay waay Ouzin Keita ma ngay jooy rek. Ouzin Keita ma nga ca buntu kër Pape Diouf di jooy jooy. waaye ren maxu poobar gi la ñuy <laughs> waaw Ouzin moom poobar parce que fay Bercy la. yooxu yi gars yi bi duñ ko attan Ouzin ñu ngi jéggalu doo mën a dem nanu bàyyi ki nga xam mooy maxu poobar gi comme mooy def acoustique na dem parce que ah. tubaab bi loolu lañu xam quoi ah, ah, sérieusement Ouzin ñu ngi jéggalu encore une fois de plus salut c'est Pape Diouf maa ngi seetaan télé sénégal point com ci kaw ci kanam ci lu baax béggee